Moustapha Niass ak Barthélemy Diaz moins cinq démb ay kurfañ daa dee rocc ca biir assemblée nationale seetaan ngeen ko journal télévisé yi am ci réew mi yëpp xam ngeen ne démb Moustapha Niass mer na ba mujj a génn wax wax ju doy waar boo xam ne ko dañ koy faral di wax waaye nag ci gémminam la génnee nee na kuy cëppi cëppi fii nga koy fekk te Barthélemy Diaz démb dafa perturbé assemblée nationale ndax premier ministre moo doon wax mu daal da koy dagg mbokk yi fi ñu toog fa nañuy toog daal di leen bàyyi directement ñu dem ci assemblée nationale xool la xew démb seeti premier ministre ak Barthélemy Diaz fan ak lan moo mujj xew démb ci assemblée. salaamaaleykum. tàccu leen le premier ministre. monsieur le premier ministre. vous avez la parole. waxal lu la neex. tamit ak li nga bëgg wax ci programme bi nga xam ne mooy li la fi tax a jóg ak leeral. jërëjëf monsieur le président la l'Assemblée national maa ngi lay gërëm bu baax euh, mais chers concitoyens monsieur les députés maa ngi leen nuyu yéen yëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant. ñu lay fay. di wax na nag tey daje bi ñu daje fii daje la boo xam ne dañ koy faral di amal fii ci Assemblée national waaye tey daje bu particulier la ñuy daje ndax li tax ñu daje daje bu particulier coow li dafa bari jamono yu ñu toll nii coow li bari na parce que tout simplement mbiru caisse d'avance bi nga xam ne moom la ñuy waxtaanee dama yaakaar ne loolu. bu ñu jëlee coow li bëgg ko wéer ci état du Sénégal ñu ngi bëgg a tooñ ndax justice moo nekk def liggéeyam ndax Khalifa Sall lii ñu ko tuumaal di wax ne moom moo jël xaalis bi nga xam ne moom la jël ñu naan ay caisse d'avance la mu jël ko di ko di ko sacrifié. nanguwuñu loolu nanguwuñu loolu. Barthélemy loolu moom Barthélemy parce que affaire bi du fii. Barthélemy bi du fii affaire bi tribunal la du fi Barthélemy Barthélemy taisez-vous. Barthélemy taisez-vous. non mënuñu taisez-vous non Barthélemy dama ne taisez-vous. da ngeen ko bëgg politiser nii. dama ne document yaa ngi nii. article cinquante trois cinquante quatre. s'il vous Barthélemy. Barthélemy taisez-vous. taisez-vous. je vous en prie noppil da nga toog. je vous en prie. taisez-vous. article cinquante quatre cinquante six cinquante sept li mu wax ci li nga xam ne droit de parole xam ngeen ko du ma leen ko wax. merci monsieur le président. ba tey ma yeggali samay propos ndax lépp tamit am na loo xamante ne bii defe naa ne jarul coow ndax état du Sénégal ñëpp la fi nekkal te justice aussi ñëpp la fi nekkal. donc bu justice defee liggéeyam dama ne Barthélémy Dias. Barthélémy parce que war a topp te topp ñu leen. Barthélémy Barthélémy Dias taisez yow yow eh. yow yaboo ma ah. yaa ma dégg taisez-vous. taisez-vous dama ne noppil noppil permettre benn député di jël parole bu fekkee ne dafa am kuy wax rawatina le premier ministre kii nga xam ne mooy euh, Mohamed Abdoulaye Boun Dionne liggéeykat ay dama ne eggalil ba tey jii ne xamal ne nii yëpp rek maanaam jaru ko ndax li tax ñu wax wax ji mooy état du Sénégal dafa jël ay dispositions yu mat sëkk ndax képp koo xam ne dañu la dénk xaalis nga war koo leeral te mënoo koo leeral dinañ dal sa kaw bu jaree ñu tëj la dinañ la tëj bu tere ñu tëj la. s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît dama ne dama ne dama ne eh eh yow yóbbuloo ma man dama ne billaahi dama ne du ma man sa papa waxal Jean Paul Dias la dama Jean Paul Dias bu fi nekkoon tey mën a ko noppi day yow amoo benn yar nga nuroog tomate bu ñu loqati nii yaa déglu ma dama ne yem. Barthélemy la nga yem tey tey taisez-vous. Barthélemy taisez-vous. vous êtes en train de faire abus de nga may fekk. yow amoo benn yar. dama naan buñ la joxul parole da ngay noppi. kuy cëppi cëppi fii nga may fekk. kuy cëppi cëppi. kuy cëppi cëppi. waxal ba mu neex la. dëgg la. bul coppi coppi. normal. waxal ba mu neex la. wax ku coppi coppi. waxal ba mu neex la. fii ku fi jël xaalis dañ lay tëj. waxal ba mu neex la fii ku fi jël xaalis dañ lay tëj. c'est normal ku coppi coppi. waxal ba mu neex la. waaw vrai. Eh, ku coppi coppi. waaw ku coppi coppi. fii la lay fekk. kuy balballu. fii la lay fekk. kuy xonku xonku lu fii la lay fekk kuy jaas jaas lu fii la lay fekk booy jaas ma mbalax fii la lay fekk soo jaasee ma mbalax fii la lay fekk parti bi boo jaasee ma mbalax fii la lay fekk kuy jëppi jëppi fii la lay fekk man Moustapha kuy jëppi jëppi fii la lay fekk waxal ba mu neex la fii la lay fekk parti bi jaas ma lay waxal fii la lay fekk kuy jëppi jëppi fii la lay fekk sooy jaas jaas fii la lay fekk ma mbalax mbalax. mais fii la lay fekk. sooy jaas jaas. fii la lay fekk. ma mbalax mbalax. mais fii la lay fekk. sooy jaas jaas. mais fii la lay fekk. ma daa doy reggae. mais fii la lay fekk. sooy jaas jaas. mais fii la lay fekk. man damay ngoyaat. ma ne fii la lay fekk. soo santee jaas. ma ne fii la lay fekk. ma sant ngoyaat. ma ne fii la lay fekk. soo santee jaas. ma ne fii la lay fekk. ma sant ngoyaat. fii la lay fekk. ku coppi coppi. fii la lay fekk. waxal ba neex la. damay wax ba bu ah, ku fii la lay fekk. ku jaas jaas. mais fii la lay fekk. ma ngoyaan ngoyaan. mais fii la lay fekk. soo santee fekk. ma sant ngoyaan. ma fii la lay Saalum la fekk baax. fii la fekk. jaas ma ne xaw ma woon. fekk. Ah, ku jëppi jëppi.